mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullah mbokk yi conteneur 40 pieds bii ngeen di gis nii collectif de mourides de France waaw 40 pieds ñu def ci matériel ba mu fes dell mbokk yi ana ñan ñoo def jëf ju am maanaa jooju murid yi nga xam ne ñoo nekk Île-de-France Paris ak li ko wër ci njiital Serigne Insa ak sëriñ Massaer Ndiaye waa kër Serigne Touba gi nekk ci Aulnay Souba mbokk yi à travers diaspora bi yëpp yaakaar naa ne danay wane ne sori terewu leen a liggéeyal sëriñ Touba liit it firndele ci sori nekk Paris ak li ko wër waa kër Serigne Touba gi. Sëriñ Tuubaa xamul crise ci jamono jooju la ñu dajale ay bagages yu am maanaa def ko ci conteneur u 40 pieds ngeen di ko senni lépp di ay matériel bureautique ay armoir ay chaise ay table ay télé vidéo conférence ordinateur mbokk yi bàyyiwuñu dara ba ci ay classeur jumtukaay pédagogique la ñu dajale ne Sëriñ Mamoor liggéey bu réy bi nga xam ne nii ngi koy liggéey boobu ba tey dañu am yéene ñëw tàbbal ci suñu loxo lii nag di lu am maanaa loo xam ne nii mbooleem waa Île-de-France Paris ak li ko wër waa kër sëriñ Touba gi def nañ ko waaye mën nañoo wax sax ne def nañ ko ci turu diaspora bi yépp Serigne Mamor yàgg na leen di wax ne yéen de fii ngeen nekk sori na lool seen réew waaye nekku leen fi pour wut xaalis bu doon xaalis ngeen di yéen ñi kenn ku ci nekk sa yitte motagul du ngeen dajale ay koppar yu bëri di ko jëndee ay kër yu cher ñu di ko dëppee kërug lislaam kon yéen ay missionnaire ngeen missionnaire yooyu nag ñoo jël seen temps jël seeni moyen daal dina nag faw ñu jàppale université Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul mi ngi nii di lu am maanaam mbokk yi di bagage yoo xam ne ñëw na ci waxtu woo xam ne université Cheikh Ahmadou Bamba yitte woon na ko lool kon nag yéen mburitu France yi yéen waa Île-de-France yéen waa kër Serigne Touba Serigne Issa Fall Serigne Massaer Ndiaye jottali leen bokki taalibe ne conteneur 40 pieds bi yegg na mu ngi nii di lu am maanaa loo xam ne nii sëñ bi sant na leen ci lool mbokk yi kañ na leen ci rëcc ndax lii kat lu am solo la te firnde ji mooy yéen waa diaspora bi sori terewu leen a liggéeyal Serigne Touba. université Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul ah ndono li nga xam ne moom la fi Cheikh Mouhamadou Mourtada bàyyi woon sëriñ Mamoor ñëw yokk jéego yi kon nag lépp ñëpp lenn ku ne ngi ci biir ñëpp ci war a jàpp seeni bagage yegg si na mbokk yi te lii firnde leen ne sori terewul leen a liggéeyal sëriñ Touba kon ñu ànd seetaan Papa